baax di leen gërëm di leen sant gannaaw buy jullee seen naam Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant si ñaari waajur yi maa ngi leen di nuyu ñëpp seen tur sa sant man fii laa màggee fii laa yaroo waa Sicap ñoo bokk ndey ak baay gis nga gëm Sicap bëgg Sicap bëgg mu jëm kanam moo tax ma àndal cette femme de valeur nitu valeur a ngi nitu conviction ngi te gëm naa bu Sicap buggee dellu fu mu nekkoon parce que Sicap dafa nekkoon un quartier de référence képp ku dëkk Dakaaru da doon royoo Sicap donc gëm naa ne bu ma ànd moom changement bi moom la gëm naa loolu maa ngi ci woo sama mbokk yi di ci woo sama xarit yi di ci woo ñëpp si bàkk Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam waaw lii Alé wax noonu la Sicap ñun ñoo ko bokk ñun ay doomu Sicap lañ fii la ñu juddoo fii la ñu màggee fii la ñu yaroo amuñu feneen fu dul te kenn du ñu seetaan kenn di ñu ko defaral Sicap ñun ñoo ko mën a defar ñun doomu Sicap te incha allah dinañ jàppante mais dans la mais defar Sicap Sicap def ko mu doon une commune de référence mu dellu na mu nekkoon bu euh, ndaw yi dinañ am xëy mag ñi dinañ leen encadrer accompagner leen dans l'assistance sociale mais également ou entrepreneuriat local bi dina fi am place bu baax a baax jërë ngeen jëf. Merci,